commencer par Dialé euh, euh, famille de Mamadou Moustapha Ba mhm. mu nek un très haut fonctionnaire boo a carrière am que à état du Sénégal mhm. Mhm. donc nek que xamné aussi qu'on remarqué ci cadre administration centrale mu rend service yu bris de bi aussi euh, jusqu'à son dernier souffle Il nekk loo xam ne lu ñuy

que fi mu jógee à Paris def nañ autopsie. Mhm. ba définir ne c'est une mort naturelle. Mhm. boo xam ne euh, amul amul luñ ci war a mën a teg parce que un médecin médecin légiste moo ko def. Mhm. génnee papier. délivrer corps bi. bu amoon ay soupçons foofu duñu délivrer euh, certificat boobu. ba délivrer corps bi. donc bu ñu ñëwee fii aussi bu egsee Sénégal. Euh, traitement bi fait. na gën a rafet. Mhm. na am des hommages publics. Mhm. donc bo xam Sénégal daf ko ko rendre. mooy mhm. profité ci occasion bi aussi de rendre hommage à tous les euh, fils du pays ñi nga au niveau de l'administration centrale. sen carrière yëpp ñu dédié ko ci fonctionnement état bi. ak dohin bu jaar yoon bu tax Sénégal tollu fi mu mën tollu tay donc si lolu remarquer nañ tout euh, la plupart des une wax na ci mm-hmm. parce que situation bi ni mu qui la mm-hmm. mm-hmm. té compliqué c'est que ñaaw avons la ak amateurisme moy xol ndax buñ la délivrer corps ak ben papier bu définir genre de mort bi donc lolu la personne habilitée def ko warul mën a am polémique donc certainement li fi ce li fi wessu mo wara a tax ñaaw njort bi mais aussi lolu dafa nous luñu observé mm-hmm. depuis régime bi que bi mu démarré ba légui mm-hmm. donc sur des suppositions sur des supputations sur des bases base quest ñaaw njort ce qu'est-ce mm-hmm. ñu ngi jël ay initiative avec un amateurisme effarant ak aussi nous avons qualifié de de de la fourberie mu nekk indiscipline républicaine boo xam ne ci république fonctionnement république bi mhm. boo xam ne nit ñi ñu koy remarquer tout le temps mhm. muy benn approche bu ñu njëkk a à l'entame du régime mhm. muy un président auprès du premier ministre un premier ministre qui annonce la cadence et le président suit Il y nekk yoo xam ne ay principes républicains yoo xam ne ba ñu ngi koy au pied donc des épis yu au sein de la présidence di attaquer les structures di attaquer les les les les les les Mhm. les chefs religieux di mhm. les confréries nous les protéger au sein de la république mhm. loo c'est que ça sape la cohésion sociale ci biir bi parce que Sénégal dañ ko tabax ci lu yàgg mu jóge fu sori ba mu donc doonoon na rafet mu avons une discipline républicaine te man li ma ciy gën inquiété le fait que nous gis deux deux décisions du procureur avec deux signatures différentes mu c'est extrêmement grave mm-hmm. ci cadre république bu bu aussi ces anomalies ñu commencé à à familiariser dans le mm-hmm. cadre justice bi le cadre euh, administration centrale bi le mm-hmm. cadre administration déconcentrée bi muy le préfet sous préfet gouverneur de intérieur cadre justice bi aussi anomalies yooyu mu koy gis ça relève de l'amateurisme donc day wane amateurisme boo xam ne dafa dafa dafa effarant dafa jéggi dayoo. Mm-hmm. si ñoo xam ne bon certes avoué nañ bi ñuy doog a jël ne amuñu expérience amuñu nangam. Mm-hmm. mais y a des choses impardonnables parce que y a mm-hmm. des gens qui sont au niveau l'administration centrale. ñu mel ni Moustapha Ba ñoo xam ne seen liggéey yëpp si. luy jaaral décision état yoon fonctionnement état si loolu la ñuy xëy di si gont dëjee si seen carrière yëpp donc doon na baax ñu wàññi ñaaw njort tuuti te déglu les personnes expérimentées yi ñu fekk dispositif mhm. étatique mhm. donc loolu da ciy am mais euh, nu ma déggee euh, ni ngay waxee da ngay euh, politique ndax procureur Ibrahima tous les prérogatives pour mu ubbi li nga enquête code de procédure pénale mhm. loi moo ko may ndax li ni mel aussi ak politique bi nga waaw mën nañ ko mën nañ ko relier ak politique. Mm. principalement soubassement bi politique la. Mm. parce que aussi événement doo ko jël de manière euh, euh, truc singulière donc si benn dynamique la nekk. Mm. parce que bu ñu ñëwee ba léegi affaire de compte la ñuy wax. ay accusations yu gravissime ñu def ko ci nodd administration centrale boo xam ne moom pàcc bi mu ci jiite ci wàllu finance si loolu la ak sew ñu gis le premier ministre def une sortie boo xam ne injustifiée et inqualifiable. Hmm. boo xam ça ça un manque de de c'est une fourberie totale. Hmm. donc bon, xam ne da ngay gis da ngay sentir ne y' a de de de l'amateurisme, il y' a le un non respect. que hmm. respecter institution bi ak principe de fonctionnement état bi ni muy parce que accusation balaa nga koy yëkkati tey jafé, jafe bi ñu am loolu lay doon mooy liñ fiy wax yëpp. naka la def. Il mhm. firndeel ko ba teg ci loxo sénégalais yi dara mhm. donc non seulement institution fait sekkoon dossier yoy a démentir nañ FMI démentir na précisé, euh, préciser les comptes de 2022, il a deux pouvoir tout était ok L'administration mhm. administration centrale aussi démentir ce qui a été donc ce qui fait que nous, actuellement ils vont trouver un bouc émissaire pour xool loolu ñu accuser administration centrale yëpp ak les partenaires du Sénégal. Mhm. naka la ñuy def ba justifier ko kan la ñuy coller motif. Mhm. te aussi approche bi ñaaw na trop ñaaw na bu jéggi dayoo. Mhm. ñaaw bu jéggi parce que nit bu sacrifier carrière am yëpp ko état ba à un certain niveau bu dara desul lu mu noppalu ji. war nañ koo mën a donc respecter volonté famille surtout. respecter volonté famille surtout. parce que famille famille bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dem nañ doylu nañ autopsie bi ñu leen indil. bu mhm. jógee France donc doylu nañ loolu bene dañ ko war def relevé du corps bi dem su euh, denc ko. Mhm. donc volonté boobu su ma sañoon. Mhm. état tënku si. respectel ko te jàppale leen si ndax douleur bi teel ñu teel ko remonter mais ñu teel ko surmonté. mais bu ñu jógee demee ci ay polémiques yu futile yi nga xam ne. d' abord jël responsabilité porter mhm. au niveau de la justice parce que mhm. si nous deux signatures du procureur ça pose problème mhm. donc ça pose problème et aussi il trop ci loo xam justice procureur mon def procureur a droit droit saisir ci dossier ainsi suite parce que nous principe juridique yu prévoir mais mais de femmes une évidence bu fekkoonte ne amul autopsie mënoon nañ sax ne ah lii kat nangam. Hmm. wala njabootam bu newoon kat am nañ ci ay doute état hmm. devoir la mu ñëw jàppale hmm. leen ne kat nañu def contre expertise ñu xool lan moo ci ne donc moo tax si loolu xëy na loolu la waroon tënku pour au moins delloo njukkal kii nga xam ne rendre na service Sénégal service boo xam ne kenn mënu koo natt fi mu yem. Mhm. donc loolu loolu laa amoon lu may kii pour mhm. le moment mhm. en attendant ñu avancer si dossier surtout euh, ñu wëyal euh, ba tey àddu euh,